ministre bi xamante ne moo yor lépp lu jëm si kaaraange gi muy ministre Aly Ngouille Ndiaye ak euh, ministre bi yor lépp lu jëm si wàllu transport ministre Oumar Youm ak ki jëm si ki yor lépp si jëm si wàllu caada ak communication muy Ablaye Diop ministre Ablaye Diop ñoom ñu waxtaan ak yéen ku nekk si li xamante ne mooy sa taxawaay si mbir mi. tey nag la ñu am ñetti weer 2 mars 2020 ba 2 juin 2020 ñetti weer yoo xamante ne si ndigal ak orientation wu président de la république taxaw nañ doxal xeex bi xamante ne moom la ñuy xeex si Covid 19 bi noo xamante ne day mën nañ jàpp ne nu mucc ayib la. parce que lépp loo xamante ne rek waroon nañ ko ci def taxawe nañ ko li ñu mën a tënk muy ponk yoo xamante ne yu ñu mën a jàpp la mooy ci ñetti weer yi test yi ñu def toll na si boo koy xaymee fukki junne test ci fukki junne yooyu ñeenti junne ak ñaar fukk ak benn ñoom ñoo ci positif boo koy xayma ñaar fukki test yoo jël rek juróom-ñaar moo ci positif loolu nag am na lu mu mën a jàngale li ñu jàpp mooy ba ñu commencé ba léegi ci ñeenti junne ak ñaar fukk benn yi am feebar bi ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ si lu ñu mën a jàpp doon mooy ñaar fukk yoo jël rek te ñu amoon feebar bi juróom fukk ak ñetti yi wér nañ ba dellu seen kër muy loo xamante ne itam mën nañ si jàng taxawaayu suñu service yi xamante ne ñoom ñoo yor prise en jàpp nañ tam ne ñeent fukki juróom ñeent fukk ak juróomi patient génn nañ ci àdduna loolu nag mooy wane ne ñaar fukki patient yu am feebar bu nekk mën nañ wax ne benn bi moo génn àdduna loolu tam ñi ngi jàng ne Sénégal performance boobu mu am foofu nekk na performance boo xamante ne boo ko méngalee li am Afrique ak li am ci àdduna bi wane ne quand taxawaayu nguur gi si wàllu feebar boobu jàpp nañ ne si réew mi yëpp tam ñaar fukk ak juróom-ñaari site fu ñuy toppatoo suñu maladie la ñu ubbi li ñu leen jox noonu si ay indicateur pour ngeen xam suñu taxawaay naka la tëdde léegi nag li ñu mën a seetlu mooy que ne ba ñu commencé mbir mi ba léegi nombre de cas yi première semaine bi ba onzième semaine bi daf doon yéeg onzième semaine bi nag la ñu toll foo xamante ne am nañ juróom-ñaari téeméer ak euh, juróom-ñaar fukk benn cas mën nañ jàpp ne mooy semaine bi ñu ëpp ay cas yu ñu am onzième semaine bi ba léegi ñetti semaine tegu nañ si ñu ngi seetlu ne xayma boobu day wàcc ñu ngi ñaan suñu borom wàcc boobu mu continuer mais li ñu mën a jàpp mooy que am nañ espoir que ne onzième semaine boobu ñu amoon juróom-ñaar téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn yi mooy li ñuy wax semaine pic bi xamante ne moom lañu ëpp lu ñu am ay cas ñu ngi ñaan yàlla loolu confirmé wu. mais wàcc boobu ñu leen wax bu mu tax ndëkk ñu ne dañuy yox yoxal wala ñu wàññi rigueur bi ñu ngi demandé ñu yokk bu baax surtout lépp lu jëm ci masque yi lépp lu jëm ci mesure barrière yi ak lépp lu jëm ci taxawaay bi pour que donc ñu mën a te Covid 19 bi mu bañ a faagagal suñu réew taxawaay boobu nag dafa war a gën a tar ci dakaar parce que li ñu seetlu mooy ñaar fukki yoo jël ci réew mi juróom ñaar fukk ak juróom yi ci région de Dakar lañ nekk particulièrement nag ci département de Dakar bi xamante ne ñaar fukki yoo jël ci réew mi yëpp juróom fukk yi ak juróom benn ci département de Dakar la nekk bon ndëkk ci 19 communes yi xamante ne ñoo nekk ci département de Dakar situation boobu nag daf ñu war a jàngal ñu am beneen taxawaay taxawaay bi ñu si am sama service technique yi parce que samedi ñoom danañu ñëw defal ñu évaluation technique bu wér danañ gën a expliquer taxawaay boobu lan moo ko lal mais lañ si mën a jukki rek mooy que ne danañu gën a jox mbir communauté yi ñu xamante ne ñoom ñoo nekk à la base ñu gën a taxaw mais aussi danañu gën a toppatoo mag ñi xamante ne dafa am feebar beneen bu ñu àndal taxaw tam pour lépp loo xamante ne war na si rek si geste barrière ñu am pas-pas bu wóor pour que virus bi arrêté circulation am si Dakar maa ngi nag ama may jox kàddu sama naataango yi jox leen situation wu tey bi. tey jii alxames si ñeenti fan si weeru juin 2020 ministère de la santé de l'action sociale jot na résultat wu examen yi mu doon def lu yëpp test yi ñu def tollu na si junni ak ñetti téeméer ak ñeent fukk juróom-ñett si xayma boobu nag ñi si ñëw positif nekk na juróom ñett fukk ak euh, juróom-ñeent boo koy xayma ñaar fukk yu nekk juróom-benn ñoo ci positif ci ñooñu positif nag juróom-ñaar fukk ak ñeent yi ay cas contact la yu ñu doon euh, suivre fii si suñuy service fukk ak juróom yi ay cas communautaire lañ leen tudde cas communautaire yooyu ñu ngi nekk ci Dakar Nord ñett Dakar wes ñaar Grand Dakar benn Bargny benn Touba benn Tivaouane benn Mbao benn Rufisque benn Diofior benn Matam benn Thilogne ñaar ñuy aussi noté que ne tey am na juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent patients yoo xamante ne wér nañ danañ leen bàyyi ñu ñibbi seen kër tey am nañ tam fukk ak juróom benn cas yu ñu tudde cas grave nekk su suñu service de réanimation booy jàpp ba ñu commencé ak léegi mën nañ jàpp ne am nañ ñeenti junné ak ñaar fukki benn ak cas si ñeenti junné ak ñaar benn yooyu ñaari junne ak ñaar fukk ak juróom benn fukk ak ñaar wér nañ mën nañ wax ne tam fukk ak juróom génn nañ si àddina boo nag tey junne ak euh, juróom-ñetti téeméer ak fukk ak ñetti cas yoo xamante ne ñu ngi leen di faj ñoo nekk si euh, suñu hôpitaux yi ministère de la santé de l'action sociale di ñaan ñu bañ a bàyyi suñu loxo ñu jàpp bu baax pour que mesure barrière yi ñu respecté ko bu baax mais surtout pour que masque yi ñu leen wax ñu sol ko ñëpp jàpp si parce que courbe bi ñu leen di wax ne mi ngi wàcc bëgguñu mukk ñu yolomal mbir yi wala ñu yaafus ba mu yeegaat loolu nag la ñu taxaw te gëm nañ ne communauté yëpp danañu si jàppale ñu ngi leen di remercier bu baax ma jël kàddu gi nag di ko jox euh, monsieur le ministre de l'intérieur monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye mu ñëw waxtaan ak yéen maa ngi leen remercier bu baax ngeen jot suñu vidéo nag foo si biir réew mi si bitim réew da ngeen di abonné si Tawfekh Production ngeen mën a jot moo leen vidéo boo xam a xam li xam ne